mbokk yeeg xarit yi ñuy suivre ci solution TV solution info euh, altine jot na euh, ngeen ni am nak l' des émissions fii ci solution TV solution info. 21h jàpp 20 21h30 ñuy ànd ak alaaji Sanjogu Meng ci bile émission ginnaaw bi ñu nuyoo nag mbokk internet ñuy suivre dem ba diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuy leen ziar leen ñaanal leen jàmm ñaanal ko suñu sëriñ bi sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram te koy ñaanal mboolem xalif yi ci biir réew mi yëpp. suñu mbokk sàmmkat yi baykat yi nag ñu ngi leen di nuyu nuyu ki nga xamante ne nii moo ñuy teg pression saay su nekk muy bàyyaa seen mesere alaaji euh, tey altine l'émission des émissions d'or ñu bàyyi la nga nuyoo kentoonatu ñu suivre ma jigéen ñi ngi lay fay di la ziar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante ci yow dem ba Touba Mbacke nuyu xalif général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi ak wér ay ñi ngi nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoulahat Mbacke ñu koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ziar wér nuyu baax sëriñ xaadim nekk ca kër ga di njaboot ga yëpp di leen ñaanal jàmm nuyu sëñ Abdou Karim Mbàkke borom Makarimu Axlaa nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi di am ci ñëpp kontaante macha allah di wax ni ñu ngi yi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew. Mm-hmm. di nuyu sunu mbokk gambien yi nga xamante ni bii dañuy bàyyi xel ñu toll. di ñaanal jàmm. Gambie Sénégal benn réew la. Mm-hmm. tubaab bi wutal na ko frontière waaye ci xol yi benn réew la kese ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm. allahumma euh, comme ni nga ko waxee rek benn réew la kenn mënu koo xar ñaar Sénégal ak Gambie ñu leen di ziar bu baax a baax ñoo euh, ñooñu nga xam ne ñoo nekk biir Gambie di ñu bàyyi xel chaque jour euh, tey nag l' émission des émissions ñu fas yéene ànd ak yi nga xamante ne nii moom candidat la ci élection yi nga xamante ne ni fas yéene nañ ko dëgmal ci dimanche ji ñu jëw bi ñu jëm muy xalifa Babacar sàll moom nag dafa mel nii dafa am problème. ak euh, kii nga xamante ne nii moo di Diomaye président na Euh, programme bi ñu lal ndax tey fi mu dëkk mooy euh, ci vice président bi nga xamante ne nii bëgg nañ euh, ñu daal di koy indi ci seen gouvernement nee na loolu nekkul lu dul rek di dooleel présidence parce que am na yeneen moyens yu nga xamante ne nii mën nañ ko teg te séparation de pouvoir day daal di am dinañ ci ñëw léegi léegi ànd ceek sa Sanjoogu Meng ñu ànd ak Cheikh Yirim Seck waxtaan bu mu sekkoon ak Maimouna Ndour temps yële ci ginnaaw di laaj ndax diggante Bassirou Diomaye ak kii di Ousmane Sonko ndax nekk na loo xamante ne nii diggante bu ratax la waaye nag li ñu nemmeeku euh, jamono jii nii ji dina ci ñëw indi ci version am ñu jeexalee ak ki nga xamante ne nii moo di Kader mi nekk fële ca Sen TV euh, nekk fa chroniqueur. moom nag nee na tiit na lool suba ñu ni Diomaye fay mooy nekk président buy jiite réewum Sénégal nee na itam euh, surtout nag ci plan international ndax euh, jàkkaarloog wala toog ak ki nga xamante ni nii moom moo di Joe Biden Macron wala Poutine nee na loolu dana ci am kersa bu baax a baax loolooy doon waxtaan bi léegi léegi ñu daal di ànd ak yéen ñi nga xamante ne ni yéen a ñuy bàyyi xel ñu dëgtal leen. Euh, kii nga xamante ne ni moo di xalifa Babacar Sall kàddu yi mu yëkkati fële ci QG jëmale ko ci vice président bi nga xamante ne ni ñu ngi koy waxtaanee te dellusiwaat. vice président bi euh, man dama bokk ñi ñi gëm ni euh, il faut rationaliser les pouvoirs et les institutions dans ce pays et que c'est la macrocéphalie de la présidence qui fait que certains excès ont été possibles dans ce pays. présidence la république c'est-à-dire ni mu mel mi ngi mel ni rek nga gis nit ku am bopp bu nganda nganda nganda am yaram wu tuuti il faut que ñu équilibrer entre président gouvernement assemblée ak magistrat ñeent ñooñu dangay fexe ba ku nekk yor dara ci liy pouvoir ci réew mi soo ko defee tu es sûr d'avoir un équilibre parce que les pouvoirs vont se neutraliser seetal Amérique ak lu président bi rëg-rëg lu mu am am doole congrès baa ngi taxaw président bi xam na ni lii mënu ko su ko bëggoon nit du ko def foofu la ñu war a egsi ci réforme état Sénégal président la république dafay am lu mu yelloo gouvernement am lu mu yelloo magistrat yi am lu ñu yelloo ba assemblée am lu mu yelloo muy quatre pouvoir yi nga xam ni ku ci nekk xam nga li la war ak li nga def mais soo yokkee vice président yaa ngay dooleel présidence ba te damay bañ fàttali yenn souvenir 1962 ñoom ñaar suñu bokkee légitimité rek nga am problème mi ngi mel ni li nga am ñaari kuy ci benn. dualité au sommet de ah, yaa ko wax de. damay bañ daal man je considère que un bon régime et ça le, les assises et la CNRI avaient fait de très bonnes propositions donc moi je pense que nañu dellu si vers cette orthodoxie vers cette orthodoxie là. qui nous permet une rationalisation, une répartition, un équilibre entre les différents pouvoirs. ayca mi ngi noonu alaaji dégg nga euh, ki ji xalifa Ababacar Sall li mu wax dem ba ci monnaie bi la woon tey ji ñoo ngi ci li nga xamante ne ni moo di vice président bi nga xamante ne ni euh, programme mu Pastef wax na ko. moom nag nee na am na yeneen moyens comme e-, exemple yi mu joxe ba euh, cité waale ci États-Unis ñoom président bi lu muy am am doole mais nee na congrès baa ngi taxaw euh, di am yenn yoo xam ne mi ngi koy bañ. waaw <coughs> euh, Khalifa Sall macha allah déglu nañ ko bon États-Unis bi ñu wax États-Unis am na vice président. Mhm. donte am na congrès. congrès baa nga fa mais terewut vice président am na fa du dëkk mm-hmm. xam nga boo seetee programme yi politiciens yi bu njëkk ba euh, dañ doon tiire ci ki nga xam ne mooy candidat sortant bi ki représenté candidat sortant bi ci la opposition bi yëpp daan tiire ci ah. ki nga xam ni moo mooy candidat sortant ci lañ daan tiire tey jii ki représenté candidat sortant moom mooy Amadou Ba mais boo seetee politiciens yëpp ci jomaay la ñuy tiire léegi ku ci tiirewut ci jomaay yaa ngi ci tiire ci Ousmane sonk les autres boo leen déggee ñu wax rek ñu ci bari bon am na ci nag ñoo xam ne waxuñu ñu ngi wax seen programme ak yooyu quoi euh, mais ñeneen ñi nga xamante ne bi jàpp nañ ni ñoom yaakaar nañ ni politiciens yu yàgg lañ fi nekk politiciens yu mag ñoom ñëpp dañuy tiire ci jomaay parce que ñoom dañu jàpp ni euh, fañ war a yegg kooku moo leen ko war a xañ waaye calculer wuñu Amadou ci course bi ñoom boo seetee loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li ne léegi nag boo seetee tamit benn njariñ tamit mu ngi ci parce que ñoom ñooy wax programme Pastef ñoom ñoo koy leeral ci plateau yi ñoom bu ñëwee ci plateau au lieu ñu leeral seeni programme mais dañuy leeral programme Pastef parce que li tax ñu koy leeral parce que buñ ñëwee di ko lëndëmal loolooy permettre après booy yi ñoo la ñoo la koy leeralal ci internet bi. waaw maanaam xam nga ñoom waxuñ ñu li ci ñoom seen programme ñoom lan la. Mm. mais ki xas ba bind ba nga koy critiquer yow moom lan nga bind lan nga indi loo indaale maanaam kàndaay bu ma leen doon laaj dama leen di wax yéen lu ngeen indaale parce que kii nee na ci wàllu mone bi. yaa ngi ciy waxtaan boobu ba nëgëri yaa ngi nekk ci monnaie bi nit ñaa ngi wax naan woy franc CFA kërëb kërëb nii ak nii ñoom ñëpp ñu ngi ci ñoom amuñu lu ñu wax ah ñoom proposé wuñ dara mais ñoom dañuy critiquer li waa ji proposé mais ñoom indiwuñu seen proposition nan lañu nar a doxalee xam nga loolu moo tax sëñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum daa di wax ne euh, ki defar li muy defar ba pare ñëw rek nga ne ko euh, sa lii normal mu ne yaa ko gën a yomb métier critique dafa yomb ni nga xamante ne bi ñoom noonu la ñu expliqué vice président bi ni nga xam noonu la ñu ko defee xam nga bu ñu président rek ñëpp dañ jàpp ni Ousmane Sonko mooy nekk vice président ñoom préparé wuñ ko sax ci quinquennat wu euh, bu Diomaye gagné élection yi calculé wuñ ko sax ci loolu parce que ñoom ñu ngi koy calculer pour beneen ba. beneen mandat mais loo xamante ne bi ñoom lu ñuy waxtaane ay proposition la ay xalaat la yoo xamante ne bi amee nañ ko di xool nan la ñuy def pour mën koo def du dëkk. donc euh, pareen saay euh, da nga naan bon ndax opposition bi ndax war nañu wax rek opposition parce que bu ñu waxee opposition mooy ñi nekk ci kujje gi ñi nekk ci kujje gi euh, dañuy mel ni ñoo daan faral di laxasooy goj tey jii moo tax may wax booy ne nañu am fullaak fayda préparer affaire bi doon benn kii buñ sax dem ay deuxième tour parce que xam nga lu tax opposition bii ma gis bés bu ñu fi demee deuxième tour fële la ñuy féete ji ñii ma gis nii ñu ci bari mën nañoo féete ji feneen fi hmm. ah mais attention de lii ñuy daw. waaw mais si mën a demee di waaw mais non non maanaam waa ji toog na ñu ñëw ne ko puusal may ñu ñu toog ak jógal fii lu mel nii bu mu fi amati bokkut xam nga ñee dañoo proposé ne lu mel nii bu mu fi amati. depuis 1960 ba nag ni ñu ngi ci lii bu mu fi amati am na ñoo xam ne lu mel noonu nag ñoom dañ dañ koo bëgg bëgg nañ mu continuer di nekk ñooñu bëgguñu lu mel noonu bëgg nañ waa ji jóge yu fi waaye nii yëf yi di doxee moom bëgguñu mu jóge fi ñii nag dañ ne doxalin wi na fi jóge. jaamaarloo ak ki nga xam ne moo nekk ci kaw nga dem xam ne fi mu toll nii il faut séparation am ngay dem di jàppale ki nga doon jaamaar loolu loolu tamit fu mu am nag alaaji. waaw mais lii leneen li moo gën a garaaw wala xamoo loolu leneen li moo gën a garaaw parce que dafa am loo gis nga mag bu doo dégg ñu leex ne la euh, mag du tuxu mag du kii mag du lii dafa am yu bari yoo xam ne mag ñemewu ko maanaam xale moo gën a ñeme aventure Ablaye Wade xale yi ñoo ko fal mais mag ñi liñ nekk doonu daleen di doy xanaa xamoo ni pareen saa yi nga nekk ci mbir ba defee ne lii lu normal la baax na maanaam ñun Sénégal ni ñuy dundee nii am na ñu bari ñoo xam ne dañ suñu jàmm ji te xoolal ki la koy wax mi mi ngi lay ñaan lu mu reere de naan jàmm ji ñi am macha allah lii moom dara dàqu ko saa yoroo foofu lu ma reere te pour moom mi ngi ci jàmm am na koo xamante ni kii mi ngi lay leb dépense te pour moom mi ngi ci jàmm. am na koo xamante ni kii li xale yi nga xamante ni bi eh, ñi ngi jàngi amut sax lu mu leen jox ñu kii et pourtant boo ko waxee mu ne la jàmm ji moom alhamdulilah ku ne ak ni nga xamante ni bi maanaam ñoom jàpp nañ ni xëy tëdd nelaw yeewu añ jot léeg-léeg nga lijjanti ko añ pour ñoom li dangay gis koo xam day añ ba pare tegale guloo daal ah, saa yi jàmm dafa neex de fekk ne moom non seulement dañ koo may mu añ may ko mu kii ba noppi amut loo xamante ni parewut pour def dara ba noppi naan jàmm dafa neex nekkul ci jàmm mais xamut moom ni nekkul ci jàmm dafay jàpp ni loolu lu normal la yëf yi nii la war a demee parfois nga romb nit mu ne la saay <laughs> saay war ngaa am beneen oto de te moom mi ngi xaar super wala mi ngi xaar kii naa la saay war ngaa sax mel ni moom léegi moom maanaam bokkul ci ñi nga xam ni ñoo war a am loolu maanaam xam nga li ma la bëgg a wax dafa am yoo xam ni doo comprendre yëf yi maanaam dafa am ñoo xam ne comprendre ñu enjeu yi lan la am na koo xamante ni kii tey jàpp na ni lii mu nekk baax na léegi nag mastamaak nag politicien bi nga xam ne nag moom mi ngi rek régler boppam moom lii mu nekk nii pour moom lii ok baax na fekk nit ñaa ngi koy nangu baax na léegi nag li leen tiital mooy li tax ñu jekki-jekki rek askan wi nangootuñu lii loolu mooy li leen tiital pareen saa yi du ay jomaay leen tiital wala keneen leen tiital mais dañu xam ni dañu bëgg a neewaat gars yi delloo si leen seen xel gars yi duñ delloo si seen xel de parce que gars yi li ñuy xool li seen xel gis ak li xam duñu delloo si seen xel ah, daa parce que gis nga dafa am mbir moo xamante ni bii tey mm. boo seetee ñi gën a xam yëf yi euh, man damay wax ne mooy ñi ne ci bitti ñoo gën a yee sax ñi nekk ci biir mm-hmm. moodu moodu yi mm-hmm. ñoo gën a yee ñi ne ci biir parce que ñoom dañoo nefe neen gis leneen comprendre nga xam li ñu amee xam ni la ñuy wuti mën nañ koo am ci suñu réew ñu pare nag mu jaral leen lu ne pour ñu investir pour seeni doom yi ne fii wala seen doom yu nekk foofu ñibbisi waat ci seen réew moo tax ñooñu ñoo gën a comprendre enjeu yi te booy man jàpp naa ni réew mi nit ñi nelawatuñ quoi ñoom xalifa buñ ñu jéem a nelawloo yeewu nañ. moom fi mu nekk mooy fi baax fi en tout cas nag dimanche incha allah mooy leeral mbir yi ci kattanu yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbboo ci jàmm ñu ànd ak nag euh, Maimouna du Faye ak Cheikh Yérim Seck ci waxtaan yu ñu sekkoon jëm ci diggante Bassirou Diomaye ak kii di président Ousmane Sonko. attends ma laaj la benn affaire yow pour yow diggante Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye neex na moment bi yow en tant que journaliste information yi jot naa ne neexatul de waaye neexoon na loolu nag. non dama lay laaj yow en tant que journaliste tu es informé est-ce que diggante Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye moment bii neex na. est-ce que du la bàyyi nga tontu ci. non non tontul yow li nga xam. lan mu seen diggante neex na wala neexul moment bi. en tout cas yi may gis par euh, par par par par euh, nu mu euh, waxuma ay. <laughs> mi ngi noonu alaaji euh, Cheikh Yirim de question bi la laaj defe naa su ma juumul Maymuna moom moo ko war a laaj parce que moom moo ko dalal euh, ci mbirum euh, Ousmane Sonko ak kii di Bassirou Diomaye fay ndax seen diggante mi ngi neex ba tey keroog ku leen déglu ñoom ñaar su yi dafa wax wax ju am solo <laughs> mu ne ko <laughs> yaakaar naa ne de ñiy wax ne peut-être suñu diggante dina am ñagas ñagas suba ruus naa bu ëllëgee sama doom bi ma la tuddee Euh, muy ma bëgg di ko jox exemple ci yow kon donc yenn yi war naa ko mën a ruus est que nekkul du euh, keroog bi muy wax loolu genre yirim yi la doon tontu. waa xam nga yirim moom euh, dama koo yërëm. waa mais xam nga li muy wax nii maanaam le fait que moom lii muy wax nii moom xam na ni ñun gëmuñu ko. ah mais mi ngi ñu koy wax te li garaaw mooy yirim day nekk ci loo xamante ni bi mais day dem ba gëm ni moom lii muy wax nii sax moom moom da koy gëm quoi day gëm ni maanaam day nekk ci maanaam da lay nax ba mu gi moom mu yaakaar ni lim lay wax dëgg la lim lay nax maanaam yirim nit ñi dañ ko xam boo déggee mu ne diggante Ousmane Sonko kooku parce que Ousmane Sonko ngi ci kaso bi Basirou ngi ci kaso bi Yérim ne dëkk diggante bi am na ay jafe-jafe daal di ne Maymuna ne ko xibaar yi yow information yi nga am en tant que journaliste mu naan ko neexoon na lool donc mooy ànd naa ak Yérim ci neexatut neexoon na lool fan la yëgee lu naqari dañuy caaxaan rek manipuler la quoi xam nga lii mooy li Assane di wax manipuler maanaam lii dañu teg seen kii bi pour manipuler. mais ñoom euh, tontu nañ. xam nga nit ñi nekkuñu foofu quoi xam nga def nañ pour manipuler mais finalement seen bopp lañ manipuler quoi maanaam li ñu def doxut parce que nit ñi moom dafa am ñoo xamante ne bi classé nañ leen ci yenn yi ba pare même boo ko yëgut yow yaay defe ne yaa ngi informer nit ñi mais nit ñi moom pare nañ ci yenn yi yirim loolu mooy li nga xam ni moo ko dal. ci buy wax ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko léegi nag lii muy def nii kan la ko doon defal kan moo ci amoon intérêt ci lii Yérim boo ko gisee xam ni Amadou Ba mooy candidat am bu jéemee jaxase xel yi jéem a créer fu problème amut nga jéem faa def problème bëgg gësam patriote yi nekk ci seen biir du ñoom Ousmane Sonko ñoo ko yitteel mais ñi ci bitti comprendre ga ñii bu ñu waxee nii ñii wax ñële rek mu am màcc mu am nag débi kii maanaam dafa fekk foo xam ne amul amul dara lu fa am mu créer leen la léegi nag bu fekkonte ni bi am na ñu ne non non nii ak nii ak nii rek laa rek ci loolu lay jafandu bu ko defee mu am débi kii bu ko defee loolu daal di kii gis nga loolu bu doon parti yi nga xamante ni bi tey mooy parti yu njëkk ya mën na ne comprendre que mais ñii seen parti bi parti bu spécial loolu moom nañ leen ko nangul parce que li tax ñu leen ko nangul mooy parti boo xam ne tëj nañ leader yi liñ ci tëj ñëpp ñenn ña fa des transhumé wuñ te dégg nga ni pour te xam nga ni mën nga njort ni proposé nañ leen lu ne mais déggoo kenn ku dem ñi fi des di xeex parce que tey bu lii mënee nekk dafa fekk ne dafa am ñu toog xaar téye yëf yi parce que sinon lii xew nii du mën a ne de lii mën a ne donte téye nañ ay nit mais niñ téewut tamit ay gor lañ yu toog yooyu nag lañ bëggoon a yàq maanaam nañ tee nii bloke ba xibaar dootu ñëw léegi nag ñu fexe créer benn problème boo xamante ni bii existé wut ne diggante Sonko ak Bassirou jomaay fay am nañ jafe-jafe fi mu toll nii léegi nag ñii dañ leen a gëmut nit ñee leen gëmut moo tax lii ñuy wax doxut. Mhm. manipuler bi jàllut parce que émission bi ci émission yi mujj la de pour manipuler la woon mais liñ def doxut donc loolu mooy li nga xamante ne bi euh, mooy mbir parce que njariñ gi yëpp loolu la woon pour liggéeyal Amadou Ba fexe créer benn kii bu ñëwoon. affaire bi tas na nan la yëf yi mënee tas Ousmane sonk moo joxoñ Bassirou Diomaye Faye wëlbatiku def vidéo boo xamante ni bi wax ju qualité nit ki wax li tax mu tànn ko ak fi mu toll ci moom comprendre nga nga bëgg a xëy nañu am nañ jafe-jafe te gis nga vidéo boobu mu defoon bu yàggale ko defoon ma vidéo bi dafa tontuwaat sax Yérim ci li nga xamante ni bi moom la doon manipile donc Yérim man vraiment Euh, dama ko yërëm parce que bu fekkee ne dañoo dund dañu yàlla dimbali nañu bañ nar a dugg dund ci Sénégal goo xamante ni bii manipulé ak yooyu yëpp dootul dox. Mm. man dama xamut après lu muy liggéey. daa am courage rek yërëm ndeysaan ni ah. muy xeex de. lan lay xeex <laughs> ah moom li mu jàpp ni moom lay xeex. li moom pour moom yoon la li muy def moo tax alaaj dañ ko koy nangul nag. Ah, nangul ko ko. <laughs> mi ngi noonu ñu jeexalee nag kii nga xamante ne ni moo di Kader mu Sen TV nee na tiit na lool. ci Diomaye moo nar a nekk président euh, suba bu Sénégal ñu dem déglu ko te dellusi. mi wax dëgg yàlla et puis dañu bëgg a comprendre parce que actuellement on a pour mm. que ñu agsi fii tey. et la suite c'est quoi. fan très bien su fekkee ni si ne pour ñu ñëpp bokk amul problème dañ ko wax les Sénégalais parce que ñu dee sax on comprend que fi mu toll nii fi mu toll nii que Ousmane ñëw nekk candidat au Pastef. ak li ñu gis ni man je pense que c'est mieux. très bien c'est mieux pour ñëpp. merci Kader. que Ousmane nekk. dellu si nekk candidat Pastef nekk seen candidat mu jeex. et bëgguma dugg sax ci ci Diomaye bi ñu gis ni tey mais man je pense j'ai très peur que pour ñu ne Diomaye ëllëg moom mooy le président de la République. lu tax ah non. balaa may ah, dem ci Omar Faye pourquoi. la mémoire de Léopold Sédar Senghor et de nos anciens man je pense que ni vraiment euh, je respecte beaucoup Diomaye. Mm-hmm. mais quand même le plan international je vois pas Diomaye. dem jàkkaarloog Baye Joe Biden. mais mais mais en face de Macron ni en face de Poutine. mais mais Kader. Kader Kader dans une république normale. dans un pays normal yow doo nekk chroniqueur dans un dans une télévision. donc non je te dis non quand ma dis que Diomaye warul warul tu le vois mal mais complexe boobu foo ko jëlee. Diomaye da nga da ko dégg mu argumenté lu baaxul. yow dans yow yow mii yow Kader. dans une république normale doo nekk chroniqueur. man sama télé doo fa nekk chroniqueur. bien sûr non non non parce que parce que yow. moi je t'ai jamais vu faire une analyse cohérente donc boo taxawee doo naan Diomaye non. voilà merci beaucoup du Diouf alaaji kàddu yi la euh, Kader yëkkati daanaka rek euh, gars yu bëri euh, am nañ nuñ ko gisee muy wax ne Diomaye fay suba naka la nar a jàkkaarloo ak kii di Joe Biden wala peut-être Macron te bu ñu fàttali ko tuuti Macron bu ko France di fal boobu moom 41 ans la amoon su ma juumul xaw ma 42 ans Euh, te euh, français yi loolu gêné wu leen woon pourquoi tey Diomaye mu am peut-être 43 ans wala 44 ans mu war a mën a déranger ñenn ñi nga xamante ne ni ku ci mel ni Kader est-ce que du complexe. Euh, Kader mi amut lu ko déranger dara déranger wu ko. nee gàcce la pour moom. mu dafa ñëw ñu jox ko mu war a wax xamut lu mu war a wax mu jël ay wax jàmbur di ko wax. mais maanaam moom euh, dara déranger wu ko ci wax dëgg fa yàlla amul leen lu ko lu ko déranger maanaam moom tàllal nañ ko micro rek euh, faw mu wax te amut xamut lu mu war a wax amut lu mu war a wax mu ne naa jël waxu li kee waxoon ma wax ko maanaam dafa am ci àddina ñoo xam ni euh, demeewuñu benn yoon seenam xel xam naa ni nit la koo xamante ni kii sax peut-être ay waxam peut-être nit ñi daawuñu ci bàyyi xel mais xam naa ni ay waxi jàmbur rek lay toogaale di wax ay waxi jàmbur maanaam amuti waxam moom mii di wax parce que bu amoon i waxam dina mën a argumenter sax li mu wax mais li mu wax amut argument bu mu ci teg parce que su fekkente ni da ngay wax loolu xam nga kële doon ko wax kooku moom boo ko xoolee ci boppam moom dafa jàpp ni sax moom buñ ko falee ministre dafa war a mel ni mannequin boo ko xoolee ci loolu la taaw yi jëm ñun nag tànn ñu mannequin bu ñu doon tànn mannequin dañuy dem jëli ji booy yaa ngi fii di défilé macha allah dekk playboy mm-hmm. ñoom la ñuy jëli ji ñu ñëw jiite ñu waaye dañoo soxla koo xam ni li njëkk mooy mu jub jàng fa mu war a jànge Euh, ñu interroger démbam gis ni nit la koo xamante ni kii nit ku jub la ñu ne ah nañu voteel ku jub parce que réew mi loolu la soxla parce que loolu rek mooy li nga xam ne moom lañ soxla euh, li lay woon li tax ma ne la bon amut benn xam-xam ci li muy li muy wax maanaam dafa jël rek ay wax jàmbur euh, gis nga nit ñi wax naa ko l'autre jour di expliquer ne la fi mu jëlee wax ji kooku bi muy wax wax ji dafa jëlut Joe Biden en tant que nit rek maanaam mais dafa jël dafa jël Joe en tant que li mu jiite maanaam Amérique bi mu jiite jël Macron en tant que France gi mu jiite jël Poutine en tant que euh, Russie gi mu jiite tey jii bu ñëwoon ñu ne ko Poutine mii mooy délégué délégué marché Thiaroye yi moo ñëw di laaj réew mi du xool Poutine mais dinaan délégué marché caara yi ah non non kooku moom warta mën a laaj réew mais du xool ndax nit ki mate na ko wala matewu ko cim njàng ci yiñ ko war a xaymaa yooyu duñ woon foofu lay ñëw comprendre nga boo ko ñëwoon tey indil ko Joe Biden mi muy wax ñu ne Joe Biden mii de ñu jële ko ci kiiw lool ñu ne kii de mi ngi tudd Joe Biden yaa ngi dégg waaye de wax dëgg fa yàlla euh, moo jiite euh, kii cak kiiwu cak gaaraas cak-cak bi nekk fële bu boobaa dootul gisati nit ki mais maanaam danaan gaaraasu cak-cak ah non non non non kii nan la mën a jiite réew maanaam foofu lay xoolee foofu la ñuy foofu la ñu ñoom foofu mooy seen problème maanaam le fait que jomaay ñu bu ñu leen tegalee jomaay au lieu ñu jël jomaay en tant que intellectuel bu jàng jaar fi nga xam ne fa la jaar liggéey ci administration bi pendant quinze ans nga war a jël kooku teg ko waaye déedéet dañu lay jëlal jomaay xoolal li nga xam ne mooy fierté man pour man ci jomaay mooy sunu fierté ñun a ah. jëlal la jomaay parce que damay gis booy seen booy affaire yi ndeysaan dama leen di yërëm di présenté jomaay bi mu nekkee ci tool yeeg bi mu nekkee ci kiiw ak affaire yi comprendre nga di waaw di làkk sal di làkk mm. séeréer ñuy ree mais dama naan mais ñii ay ñii dañoo dof wala lan c'est que foofu la problème foofu la sunu problème yi nekk maanaam dañoo complexe mm-hmm. complexe mot bi lenn rek la mooy complexé du mm-hmm. leneen mm-hmm. comprendre nga waaye tey euh, nit ñi nekkuñu foofu Sonko nekk candidat sax moo ko gënal parce que dem na bay wax waxu rëbbuloot dugg ci loolu Sonko wax na leen leer gis nga ay diw moom li ko gënal suñu yoon nekkul li ko gënal li ko gënal moom mooma yaa ngi dégg yaa ngi dégg li ko gënal moom business am la Sonko li mu leen wax mooy candidat bi mooy Diomaye Faye mooy candidat Pastef mooy candidat coalition Diomaye président jeex ba amut leneen loolu mooy li gënal Sonko moom li ko gënal moom euh, na ko lijjanti moom business am la waaw en tout cas ñi nga xamante ni bii moom ñoo pare pour voteel jomaay na xam ni moom munut lu doy di tarafatal ay ni mhm. pour jéem leen a dévier parce que tuuti na pour dévier leen mhm. ci seen objectif nit ñi focus nañ ci li ñu nekk quoi mhm. jamono ji nga xam ne moom la nit ñi nekk nit ñi bu ñuy fal nit xam nañ li tax ñu di ko fal léegi nag moom bu fekkee ne foofu la nekk na dem voteel yi playboy wala ñi nga xam ne jàpp na ne bu ñu toog ak Obama na dem wala ñu toog ak Joe Biden na dem voteel yi ñoonu mais mënut a orienté kenn koo xam ni am na yéene voteel Diomaye waaw te li ko waa ji wax nag dëgg la mm. parce que waxam ji mën na nekk waxu politicien mais pas waxu chroniqueur mm-hmm. parce que li mu ko wax dëgg la de parce que bu fekkoon ne un chroniqueur sérieux la du jël waxi politicien boo xam dafay utiliser wax jooju ngir politique moom muy ñëw di tàbbi ci loolu moo koy waneel ne ko fi mu nekk sax mérité wut place bi nga xam ne moom lañ ko jox mm-hmm. voilà. muy eh, noonu am naa solo ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw jërëjëf ma jigéen di joxante dig daje incha allahu rabbi beneen altine ak jàmm ci kàttanu borom bi. incha allahu rabbi beneen altine peut être du ñàkk ñu ñëw waxtaanee candidat bi gagné wala bu dee deuxième tour day am. incha allah nekk na doon wàllu gàng rek nit ñu door mu daal. ñu def ko benn yoon rek. ek ñu jàll ci leneen yal ñu yàlla may fekkee ak tal. may ñu wér ñun ñëpp ba ñu mën a déplacé wu ji ku nekk rek ci askan wi nga dem tànn kala neex ka nga yaakaar daal di koy votel su ko defee rek Sénégal jëm jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne nii ñoo ñu doon bàyyi xel du ñuy suivre way leen di abonné ci suñu ay plateforme jaajëfal Modou Diouf Abdou Top Lay jàlloo ñuy sooy bu Diop ak Ndeya mi toog ci régie bi di leen jox di daje suba di jàmm ak beneen émission des émissions